قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نِكَ نتيال يبدو ييب ديبو nit ki li koy jëlee ci ahlul ahlul yamin ashaabul yamin dugal ko ci na ñaari mbir rek la benn bi mooy nga jaayante ak sëriñu ak ak ak ak sëriñ rek boo xam ni am na ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo lay génnee ci ahlul ashaabul yamin jugal la ci muqarrabuna wala yàlla teg la nattu yu rëy yoo xam ni dana diis a diis a diis nga muñ ko boole ci te doo jàmbat mu doog laa dugal foofu loolu war na jaayante lu rëy ngi noonu kon ba tey nit kii dox jaayante di dox ci yoonu yàlla dafay dox ci darajay ak ak ak doxiinu ak gaawaayu kim topp sayidna abdullah ibni mas'ud nee na dafa am bis xadis muttafaq alay ku ñëw ci yonte bi di ko laaj ne ko kayfa taqulu fi rajulin ahabba qawman wa lam yalxaq bihim nit koo xam ne daa bëgg ay nit te ay jëfam mayu ko mu àgg ca ñoom yonte bi ne ko al ma ma'a man ahab nit ku ne kam bëgg kookee foofee lañ koy yëgal yowmal xiyaam buy dekk moom lay àndal itam kon boo jaayantee dugg ci yoonu sëriñ bi wéral sag bëgg ci moom ak sag aju ci moom yowmal xiyaam booy dekki di gis sa bopp ci ginnaawam lolu hadith yu bari rot na ci nekk nonu itam jaayante nit yàlla yep deppo nañ ci ne so duggé ci tariha donte aggo ba faatu bo faatoo ci diggante bi ta aggo ci agguwaaya bo faatoo dañ lay taxañal li dess lépp ci yoon wi nga daldi di àgg faw nga àgg te lolu mas na koo dégg ci leeru junj yi nek ci aya bi sun borom wax ne wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu al mawtu faqad waqaa ajruhu ala allahi wa kaana lahu gafuran ki jaayante moo tax bu jaayante ba ànd ak sëriñ bi dafa judduwaat juddu gu yees am na ci nit yàlla yi koñ mas a laaj ñaata at nga am mooy leen adduna bii dey dund naa fi juróom fukki at ak nangam waaye bi ma juddoog léegi ci ñeenti at la topp loolu mooy ba mu jébbuloog léegi boo jébbaloo da nga judduwaat loolu mooy leeral la sëñ Tuubaa daa wax te mi ngi ci majmuwa mag bi diwaanu sirku jawaahir bi wax ne murit bu ne na xam ne boo duggee boo jébbaloo na nga xam ni yaa ngi mel ne liir buy doog juddu da ci ne liir buy doog a juddu nag lenn dong la mën a jëfandikoo muy muy meew miy balle ci wenn ndeyam mënta jëfandikoo ceeb mënta jëfandikoo leneen mënu koo jëfandikoo mooy sëriñ bi boo jébbaloo li la sëb sëriñ di jox fa mu lay jaarale dong moo lay amal njariñ leneen dale am amul doon njëriñ def noonu yeneen loo ci boole dale noonu sëñ bi dañu daa teg nag ne jigéen yu am soow day feeñ ci doomam ne ko noonu sëriñ itam noonu lañu rawante bokkuñu sëñ bi nga jéblu day feeñ ci yow sëñ bi daa ci teg na xam ne yéen maay seen ndey te man samam soow du jeex mukk te ku nàmp ci man di nga màgg te di nga am kàttan te di nga amum xel foofu dañuy dégg waxi sunu sëriñ bu baax bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa da wax ne yowmal xiyaam bu demee nu gis sunu borom nekk fee yonente bi sallallahu nekk fee sëriñ bi nekk fii nun dañuy dem ci sëriñ ba loolu dinaay wax ne mooy gis ngeen liir bu ndaw fu ngeen ko fekk bu bu président de la République toogoon nii ku fa mën a toogit ci ndeyam rek lay wute te nun suñ tubaab mooy sunu ndey du sunu baay te loolu it lu am cëslaay la yàlla ci moom moo wax yonente bi ci alxuraan ne annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim wa aswaajuhu ummahatuhum am na ci riwaayaat sadda yi bu wax ne wa huwa abun lahum mooy yonente bi mooy bàyyi jullit ñëpp waa kër yonente bi soxna yi ñooy seeni ndey ñoom jullit ñëpp moo tax suñ tubaa ñun ñi nga xam noo jébbalu ci moom mooy sunu ndey te yawmal xiyaam na mu tareeg na mu metteek jaxasoo ba fa ne buñ bëggee seeti keneen dari sonn suñ tubaa dong la mën a dem am am ndimbal yonte bi wax na ne buñ fa demee imaamul Buxaari yi nett li ne buñ fa demee nit yëpp dañ dem wuti aadaw mooy maam yi ñëpp waaye kay dem ci maam da amul ndey te nun am na ndey insha allahu taala yàlla dogal na mën naa doon waxi waxi waxi murit waaye sama waajur woow yi Cheikh Mouhamad Cheikh Mouhamad eh, sëñ sëñ Abdou Samad mu Cheikh Mouhamad Xaw Balla day wax ne yow mal xiyaam bu nu fa demee sëñ Tubaa ku baax la baaxaay boo xam ne ak mbaaxam àgg na ci man naa wax suñu borom ne ko na ñëpp dem aljana mbindeef yëpp liñ def ci mooy yàlla nañ ma ko sëf ñëpp dem aljana man ma dem sawara waaye day wax ne buñ fa àggee sawara soo tee Sëñ Tuubaa ne moo may gënal aljana ndax aljana ju Sëñ Tuubaa nekkul sawaraa ko dàq maanaam ginnaaw murid yi foofu lañ toll maanaam ci sëriñ bi kon leen wax ne gën a àgg nañ ci ndax sawara buñ fa demee itam neex bu lay def ci ñoom insha allahu taala gis ngeen lii alxuraan wax nit yi sayidna yusufa falamma raaynahu akbarnahu wa qattaana aydiyahunna wa qulna xaasa lillahi ma hada bashar ñi ngi dagg seeni loxo di gis giñ koy gis ñu ngi yor paaka dagg seen loxo te yëguñu ne ñi ngi koy gis loolu nag ki musul cofeelu ak bëgg sëriñ bi ak bëgg yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ki musul loolu du mën a xam lii ñuy wax da yaakaar noonu dañuy sóob rek fekk lii du sóob <laughs> sore na ko lool maa ngi jéglu lu baax kon ki nga xam ne dafa jébbalu dafa judduwaat suñ borom wax na ci alxuraan ne wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum ma an gadaqa boo jëbbaloo boo juddee dib des na la nàmpal ndoxu moom yi alxuraan ma an gadaqan moo tax sëriñ bi boo ñëwee li fi mu jaara yow mooy taskiya xam ngeen ne ku am doom faw nga di ko jubbanti ak di ko teete mooy taskiya bi taskiya lu am solo la alxuraan wax na ci lu bare bare bari sayidna ibrahima ba muy ñaan dafa wax ne suñu borom sama nit ñi na nga leen yabalal ku leen di jàngal wa yuallimuhum alkitaaba wal xikmata wa yuzakkihim da ko mujje waaye suñu borom bi muy nongu ñaan gi dafa wax ne tazkiya bi la jiital laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasula min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim doog indi wa yuallimuhum alkitaaba wal xikma nekk noonu suñ tubaab dara ne na ngeen sax fi man ci net li boobu dara wax na ngeen sax fi seeni ndey ba ba ba ba fer te ngeen moytu bu ngeen feree ngeen moytu di mëq suuf ndax kuy mëq suuf da ngay feebar te ku feebar da ngay faatu daal ni xam ngeen luy suuf see ne suuf si ak mëq suuf mooy aduna ak waa aduna moo tax sëriñ bi boo ñëwee itam loolu lay njëkk a dindi ceew mooy bëgg aduna lay sepp ci xol bëgg aduna ci xol lay boof yan yàlla musal te yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci mu jëm mas naa wax ne lastu axsa alaykum an tusriku walakinni axsa alaykum dunya an tanafasuha len rek laa ragal ci ci yéen sama ginnaaw mooy àdduna wuy si leen ngeen di ko xëccoo waaye ma ngeen bokkaale yàlla moo tax bokkaale yàlla yombul ci biir jullit ñi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis muttafaq alayhi Sëriñ Tuubaa nag loolu it wax na ci lu leer dafa wax ne mi ngi ci fat samil alim min kas min kusufaati Cheikh Xadim bu Cheikh Mouhamadan wul Ahmad wul Hasan wax ne Sëriñ Tuubaa nee na adduna dama doon dàq ma di ko daw di ko daw ba mujj ñu ne ma taxawal bi ma taxawee adduna ñëw wër ma ci wet yépp ne ku bëgg a agsi fi man nag da ngay jéggi adduna boobu mooy Sëriñ Tuubaa am koo ma ko wër ak adduna ju bare bare bare lu waay bëgg am mën nga ko amee ci Sëriñ Tuubaa commerce bi gën a dox mooy Sëriñ Tuubaa fi ne waaye loolee bokkut ak Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa dëgg dëgg dangay jéggi adduna si génne ko sa xol doo ko àgg ci sëñ ba maa ngi jéglu baax sëñ bi am na yu bari yu ci yu ci toppoon waaye ma wane li ma bëgg a wax foofu rek li may jeexale kon mooy yii ma wax nii yi ma wax nii ci secret ak i mbir yoo xam ne mi ngi ci taskiya mën nañ ne foo jébul rek bu la yàlla dimbalee mën nga ko fa amee waaye am na yoo xam ne nag yàlla def na suñ tubaa rek moo ko jagoo yàlla ko ko defal ca ah, fadlullahi yuutihi man yasha wallahu dul fadlil azim wax gi ñu koy wax mooy wax li am la du ceegin dañuy par parlu wala wala wala yu demee mooy boo ànd ak sëriñ bi bu njëkk njëkk sëriñ Tuubaa koo mas a àndal dañuy wax ne bu faatoo dangay wuti beneen sëriñ ngir nga mën a àgg waaye sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee moom dana wax ne moom ci boppam demul fenn fa dee ci boppam du ko jege kafaaniyal baaqi mamaata sarmadan boo ànd moom da ànd say da nga ànd ak sayxun xay boo xam ne mi ngi dund di tëbb gaa yëpp itam loolu benn la ci xususiyaate ànd ak sëñ bi ba tey boo àndeek moom danga ànd ak koo xam ni mën nañ ne géej yëpp ci moom lay sotti tarixal muridiya mooy tarixa boo xam ni géej yépp ci lay sotti tarixa yëpp yecce ne ci ay njariñ ak xéewal dafa nekk ci suñu biir murid gi ba noppi yeneen nekkaat ci tarixa bu ne rek mooy li sëñ bi junj ci li mu wax ne moo tudde munal majaamii mallaka ni maaliku kulli yi وكل مسجد من المجامع من المجامع سن بي دكو تك موي لي خوت لي خوت ما فاق به الجيلاني الى يقوت ما به ابو الحسن فاق بخدمه النبي تممت لي بما به تجاني فاق موي بو سي نيكه من ني ياغي ديف لا تجاني ديف ديف لا قادري ديف ديف لا سازلي ديف لا رفاعي ديف ييب يان كوي ديف بوله نا يينن بير سن توبا يالا كو بوغل بوفم moom ci ma wax ne ahabani llahu bila makrin wala suxtin wa kulli alayhi uwila yàlla ci moo ko bëggal boom moo tax boo gisee ci mbindam lu ne wax na ne yàlla jox na ma ko lu ne wax na ne hadiyati gaabat an il aqtaabi jox na ma ba jox loo xam ni aqtaab yi ump na leen wax na ne hadiyati allawxu alxafidu walqalam hadiyati lawhul hafiz wal qalam wax na itam ne suñ borom moo ko jox alquran hadiyati kitaabu afdali ibad ba tey foofu ma jeexale fii rek mooy ànd ak sëriñ bi bokk na ci yi ci ne mooy boo ànd ak sëriñ bi li nga def ci jaamu yàlla boo ënt ak moom masalan li nga def bu ñu la tudd bindal fukk boo àndee moom dañ lay fulal lañ la cay bindal jaamu yàlla gi nga def nii keneen def ko ku bokkut ko ànd ak sëriñ bi maanaam yow buñ ko bindalee benn dañ lay bindal fukk loolu suñu wax ne ibadatuna faqat ibadati xayrina loolu lu wér la lu lu kii la am na yeneen mbir yoo xam ni suñu blaat ñoom ñoom gën a xam yàlla na yàlla booleeg Sëriñ Tuubaa te buñ taqalikoo ak moom mukk ci daraje Cheikh قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ